moom dafa ëppal de. Ah. day yéeg sa kaw seen. mbir mu ah, yaa ngi dégg. lii ne ma wugoo ba ma ñëwee ba TFM dinaa leen wax ni man réew. yaa ngi dégg. yaa ngi dégg aba bidéew nga bidéew nga bidéew nga si gaañi bidéew dafay leeral ku riw riw déggu wala laay romb na zawal gestu waa jox yoon ma nga biir sim sàll ki di nit bu ma demee dinaa dem ma chassi sa chéri gar mi laay léegi nag fi ñu toll nii euh, faaw nga dugalaat ñu ci

ay sa buré sëriñ basak baara kiroog yiw la jaam dim na giiwal ci giiru tubaab yi te xiixul jëluñu bii dinu siixal bamba doomi jaara la ki Mamour jaara soxna jaara sa doom ji mooy jaasi boromam yaa na soppi kuy maago kuy xalam ak kariti janna fecc bayaaba mustu julli ci jàppul mustu wedd ci ñaan mustu nelaw ba yantoor ngir yaatal borom be tant na na tan oui man damay mun naa bokk ci orchestre bi ah fi ko jàpp noonu ñëpp mën nañ ko faa jàpp waaw eh de oui ma ah mettiwul fi ko jàpp ah. boo aw woon wala nga ànd ak moom ci acapella bi ñu ne mais fi ko jàpp dañ may dàq dama lay wax rek ma ma awoo moom